Mbaye Diouf maa ngi lay nuyu di la di nuyu waa ñu fekk si kër gi ñëpp waa Réfane waa di la nuyu bu baax di leen ziar bu baax a baax di la bàyyi nga nuyu mbokku internet ñu commencé waxtaan bi. Xaadim maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar la baalu ak ci julli bi di ziar ñëpp di nuyu ñëpp la wax ne fii nga ñëw nag mooy sama kër muy reefan sama biir kër nga ma fekk muy Réfane Réfane nag fii laa cosaano fii laa màggee fii laa defee lépp. kon boo ma fekkee tey dama ciy sawar lool pour waxtaan ceeg yow parce que bi nga ma wooyee ci suba dama la accordel quoi ne la garaawul ñëwal parce que nag nit amul lu mooy dëkkam fi nga dëkk te man nag dama fierté pour li ma dëkk Refane maanaam daf ma dama bëgg dëkk Refane di ma dëkk Refane daf ma daf ma ñor trop daf ma yitteel trop parce que nit ku amul lu mooy dëkkam waaw te ñun moom wax dëgg naa si yàlla ay bawol bawol cent pour cent lañ nekk doomu Refane tamit di ko dund nag di ko dund ñun ñëpp parce boo xoolee boo génnee fii nii sama kër kër bi ci toppaat quatrième kër boo génnee yaa ngi jàkkaarloo boo duggee mbet mi rek yaa ngi jàkkaarloo kër Tafatine mhm. ñoom Mouli Deux. kon ñëpp fii ci même koñ. Kewel ñoom Boursine ñoom Tafaleer ñoom Carrière ñëpp ñoo dëkk fii ñun ñëpp ñoo bokk benn quartier ñoom fils de Mbaye Diouf ñëpp a ngi fi ak ñoom gàmmu Gueye booy yëpp a ngi fi fii lañ dëkk ñoo bokk ay ay mbokk lañu. waaw ah, Gamou Gueye numéro 2 la quoi. ah Gamou Gueye numéro 2. doomu Cheikh Diouf maa ngi nuyu Cheikh Diouf bu baax di ñoom Galas di ñi nga xamante ni ñoom euh, Galas ñëpp daal maa ngi leen di nuyu daal di leen ziar. mais dëkk bi fii dëkk bi fii nan la nan la naka ngeen dëkkee yéen sa diggante ay tafatinu wuli de est ce que yéen a ngi demalante ko diggalante. waaw xam nga ñun du ñu ay doxandeen ñun ay mbokk lañ ñun ay mbokk lañu ñun dañoo bokk xam nga tey jii tey lu bokk ci yow rek suñu ko dompatee nga yëg ko. mais ñun dañoo nekk ay mbokk yu jege ñoo sax waaw dañu nekk ay mbokk yoo xamante ni du mbokk yoo xamante ni mbokk falaa falaa la yu jege ñoo ndax papaay maam maamu tafaatin fii la jóge te seen kër a ngi nii soriwul dara même pas 200 mètres waaw. Mhm. macha allah kon daal dëkk bi rafet na. dëkk bi kay macha allah fii mooy Réfane. Mhm. à part à aussi mbër yi est am na ay yeneen yeneen parce que da nga fi déggee artistes est-ce que artistes yi tamit côté ñu liggéey si côté beneen domaine bi est-ce que même chose la ak seen mbër yi. waaw xam nga tey li gën a neex nit da am cosaan lan mooy cosaan Ndakaaru kenn dëkku fa mais bu ñu nee cosaan fi nga dëkk la te boo xoolee dëkk bi tey màgg na màggaay boo xamante nii macha allah mais ñëpp xamante te benn xeet bi moo fa nekk muy ay séeréer ñun ñëpp a xamante. waaw kay mu nekk loo xamante ne li doy waar la parce que nit da ngay bëgg sa dëkk ñun nag dañu bëgg reefan boo xoolee am na ñooñ dañuy tiitaroo reefan te dëkkuñu fi dañuy tiitaroo reefan di di théâtre di tudd reefan te dëkkuñu reefan waaw am na. dañ ci gis ay cas. waaw parce que ñoom jogoy dëkkuñu fi te jogoy ñu bari dañu yaakaar ne fi la dëkk. boo xoolee bi may toog télé di tudd reefan boobu mën naa ne reefan kenn tuddagu ko télé. li ma lay wax c'était en 2000. boobu kenn toogagul ci télé di xam jamono yooyu maa ngi noonu nekk bëri deuxième combat di tudd Réfane normal ci télé yi kon xam nga loolu lu yàgg la waaye moom nag Réfane xam naa ne saf na ko moom Jowey. doo mhm. fa la dëkk dëkkul Réfane. non dëkkul Réfane moom mu ngi dëkk euh, Touba foog naa Touba la dëkk waaw. macha allah am na solo euh, Mbaye Diouf ah, fàttali bi. oui ah, macha allah am na solo fàttali bi am na solo léegi da ñëw dugg si ko li ma fi indi nag mooy làmb ji. waxtaan bi waa dëkk beeg yooyu yëpp am na solo trop léegi làmb ji nag mu war a am la 31 Balla Gaye Bombardier Siteu Papa Sow sax bu ci ji waxaale ci tuuti rek euh, Balla Balla Gaye bëri mës ngeen bëri xam nga ko bu baax Bombardier mës leen bëri mais seetaan nga ko ba taay mu bëri tey jii tey Mbaye Diouf combat boobu lan nga lan lan ma ci mën a wax Balla Gaye Bombardier déjà seen état de physique. xaadim sa télé bi pour làmb la ci làmb la ñu mos di wax saa yoo ma wooyee ne ma ndax dama boog ñu def émission dama la naan pare naa parce que xam nga fekkee nit ki da nga am ci loo nekk. da ko war a miin bu ñu la fagee deux heures du sax war nga cee mën a wax parce que man moom dama xam làmb xamantuwuma ko dama ko tarbiyewu jaar ci équipe bu mag muy Fass jaar ci Moustapha Gueye nga xam ne kooku mooy capitalu làmb bu ñuy wax làmb kooku mooy capital bi ci làmb maanaam tey bu doon xere la mu ne mooy capitaine bu doon ci militaire la capitaine la moom ci làmb ma tarbiyewu ko normal nag kon nag su ma waxee ci làmb war naa cee wax. te li may wax nii du question lu ma foraatu dama ko xam dama ko xam dund ko. Mhm. waaw lambaatu woo ko de. non non non jamais lambaatu ma ko de dama ko xam bu baax. Mhm. léegi ci loolu nga bëri mbër mu daanoon la nga war a ñëwaat ngeen di bëriwaat loolu dèjà daf lay daf lay encouragé wala daf lay wala wala wala daf lay daf lay daf lay wàññi. waaw revanche nga wax revanche kay boo ko jëlee da nga war a jël say motuwaay yel mi yow mi jël revanche ki nga xamante nii tamit moo moom nga ji ci moom nga jël revanche bi. kooku moom leen rek lay def fa mu tegoon tànkam la koy tegaat rek na mu amee woon ndam noonu lay defaat pour am ndam rek yow nag bi nga xamante ni amoo woon ndam la la xañoon ndam da xool la xañoon ndam nga bañ koo defaat fexeel nag xool li lay jox ndam nga def ko loolu la rek. Hmm? ok léegi ñoom ñaar fi mu toll nii kan moo bi bu pression doon am ci kan la ci diggante Balla ak Bombardier. non pression bi ci Balla lay ëppee parce que moo jël si revanche. boo jëlee revanche yow da nga war a jël say matuwaay yëpp parce que leen ngay indi tey duma daanu boo juumaatee waa ji daanaat la waaw pour bu la bu la daanaatee am mu nekk deux zéro soo ko daanaatee taxut mu nekk benn benn maanaam li ñu naan euh, gooto gooto lay doon rek. Mhm, benn benn lay doon égalisation lay rek nekk rek. Mhm. léegi bu ñëwee ci biir combat bi ñu xool wala ci balay combat bi. nañ maa seen état de physique fi mu toll nii boo leen doon comparé lan wax. waaw man xool naa ñoom ñaari mbër yëpp jee seetaan naa ko parce que man nekkul ni loo xamante nii damay foraatu di ko wax gis naa ñoom ñaar ñuy def box gis naa Balla di def ay série série série série xeex boo xamante série bu normal la bu normal bu jaar yoon bu tegu ci temps moom Balla denc na yaram bi. téye na yaram bi bàyyi loxo yi di def bam bam bam gauche droite gauche. denc yaram bi mooy lan. maanaam denc yaram bi mooy bouger yaram bi yënguwul opéwul benn côté ci ligne bi ñu ko xeexloo foofu lay xeex normal xeex bu set wécc moom Balla gis naa mu koy def kon nga xam ne préparé na parce que boo xoolee bu njëkk bu doon dóor am na euh, kii bu muy def déplacement bu muy def du dootul nekk ci ligne bi muy xeexe waaw Bombardier gis naa ko seetaan naa ko muy moom tamit. Euh, gis naa ne bu dóoree inde day mel ni lu xaw a tërëf tuuti mais xam nga Bombardier mënoo koo natt foofu parce que Bombardier boo koy natt moom li mu xam mooy bu arbitre sifflé mu cadre la dox sa kaw moom xamul ay latéral gauche wala latéral droite wala dugg génn xamu ko moom dox la xam wax yaa ngi may dégg moom dox avancé la xam avancé boobu nag yombu cee juum avancé boobu muy avancé def la cadre def la écran yombu cee juum. len ngay def ñettay am bu la ko defee ñett mooy am te xoolal li ma la bu baax bàyyi ci xel da dàq nga génn saaku yi wala nga song si song song bu baaxul wala nga taxaw xeex moom mu dóor la nga per réseau ñett yooyu. ñett yooyu mooy am ci attaque bi yooyu mooy am ci attaque bi bu la xesee attaqué ba liir la loolu lay def dalay lay day dox sa kaw dangay ngay jéggi saaku yi. wala nga taxaw siisu xeex moom mu door la nga perte su mu daan la wala nga song si song boo xam ne baaxul parce que am na sëkkatal boo xam ne bu ñu la ko defee te mënu bëggoo jéggi saaku boo song bu baaxul rek nga fay def. Hmm. waaw parce que li nga wax nii dama gis ci combat bu njëkk ba boo boo bëggee dafa dox ci kawam Balla Sane dóor arrêt gu arrêt waaw loolu loolu ba. waaw gis naa ko parce que combat bu njëkk bi bala dafa leewtoo ak Bombardier ñu leewtoo leewtoo Balla sànni Balla sànni ko Bombardier def arrêt ba pare dox ci kawam. door ko droite waaw bala de ko Bombardier da koo door droite droite bi sax coup des naa am impact mais daf ko dóor droite rek bala jël coup bi rek mu daw tamp bal ko tamponné ko rek plaqué ko bala teg fees mhm, noonu la demee woon bu njëkk bi bu njëkk bi noonu la demee. léegi combat bi combat deuxième combat bi ñu war a bëre samedi bi incha allah ñoom naa dafa am dafa am fu lu ñu xaw a lu ñu bëgg lu ñu xaw a niru la ci bëre mu bala day dafa bëgg ñëw ci wet gi mu mboot mu mboot ko te Bombardier boo xoolee ñu taxaw seen seen mboot yëpp da leen leen cee daan. non combat bi la lépp lu muy travailler du doon ci kaw lépp lu mu nar a bëre du doon ci kaw Balla du bëri ci kaw de mun na yëngal ci kaw nag mais lépp ci suuf la am na dóor gauche droite maanaam teg sa tànk waa ji teg tànkam nga ne tey du ma du ma jóge fi ma nekk teg pièce la toog ci say tànk def gauche droite waa ji déclenché nga nga nga nga wàcc bëtt ko tee ci ngem li xandaalu jargandaloog moom loolu xaw naa ko cee gis ci combat bi du ma la ne nag moo am xaw naa ko cee gis maanaam ci gàttal daal bala bëre bu gaaw la bëgg a bëre ak bombardier bëre bu gaaw ku la ne combat bi bala da koy def bu yàgg nee non bëre bu gaaw la bëgg a bëre ak moom bombardier nag. dama xam bëre bu gaaw boobu est-ce que bëre bu gaaw boobu nan la mën a nekkee. bu jàppul bu jàppul bu jàppul bombardier nan mën a bëre bu gaaw boobu. bu ko jàppul comme. maanaam bu jàppul ngéemam bu jàppul ngéemam waaw parce que day jàpp ngéemam bala loolu rek la bëgg bala dafa bëgg a def gauche droite mais bu koy def day jege waa ji da koy ñuuxu ses ko xeex moom xeex bu gaaw wàcc mais wàcc bi mun na dem ba mel ni lu koy song te du ko song jàpp ngéem ni jargandaloog moom bëreeg moom wàcce bërëb bi wala day wàcce bërëb bi bi yoon te di nga ne mbay ju waxoon na ko day wàcce bërëb bi xam nga bërëb bi bu njëkk ci kaw la woon parce que ci kaw lañu dalantee ba mbay da ko bal da koo bal rek da koo bal fekk balla téye na ci ngémb li gauche balla téye na Bombardier boobu mais instant boobu réseau bi normalul parce que dafa fekk mu jël ko après ci la ko Bombardier plaqué tamponné ko bala teg hanche waaw noonu la demee woon. donc combat bi ci suuf la ne la la bëgg a bëri Bombardier li nga gis. ah man la li ma gis Balla ci suuf la day wàcce bëri bi parce que bëri bi du ci kaw te it bi du yàgg combat bi du yàgg. Mhm. dina xumb nag dina am ay contact bu neex. Mhm. mais est ce que nga foog ne yow dina yomb ci Balla mu mu jëlee bëri bi ci ko indi ko ci suuf balay boobu parce que il faut ñu bala ñu bëri ñu bëri dina nañ il faut ñu xeex bala ñu jàppante. mais ni ma gisee ni ma gisee Balla moo gën a gaaw Bombardier ni ma gisee ci ni ma gisee. boo xoolee seen côté volume. ma maanaam euh, boo xoolee ci wàllu physique bi Balla moo gën a gaaw Bombardier mais nag loolu mooy tax nag Balla gaawaay boobu mu ko gën a gaawee ci la war a gaaw a bëree moom parce que warul nangu ba Bombardier di ko liir ñu naan ñu ngay lewtoo ñu ngay lewtoo bari nañu une minute bëri nañu deux minutes ñu ngay demee wet non jee boobu defeek moom loolu doo ko daan hmm? Bombardier il faut nga gaawal bëri bi balaa muy actionné nga actionné dem sa yoon loolu mooy bëri ak Bombardier. da ko war a attaqué wala dafa war a xaar ba ma jóg jug ma soog a dajeeg moom. non non non Balla li mu war a def bu arbitre ne prip day xaaj waa ji day taxaw jagonaal Diagonal lay taxaw xaaj waa ji ba pare mun na mun na njool sax premier bi ngir bëgg a xeex moom xeex bu gaaw mais après dafa war a wàcc dafa war a wàcc ci suuf bëre bi ci suuf la téye ci ngém li contact ak waa ji jargandalu ak moom li ma xalaat foofu la bëre bi jeexe kon ak doomu daanu yëpp daa xëy séntu ko ci. daanu doomu daanu pour mu am ci day xaw a jafe xamul tax parce que bala combat bi yoon bopp la koy bëree bopp lay bëree bi yoon. calcul parce que gis naa ne pare na daal moom Balla pare na de. waaw pare na de. Mhm. incha allah mais tamit pare na. parce que ñëpp a ñaar ñëpp a pare. mystique bi ba sax bëri na ci làmb gi trop. man moom mystique duma ko considéré ci làmb man xam nga lan laa gëm entraîné ba wow koŋ préparé vitesse réflexe vivacité rapidité. parce que loolu ak doole force bu baax loolu dafa am solo ci komba loolu xoolal boo xoolee képp ku la ko ëpp ëpp la rek da lay bëgg a gañe parce que boo xoolee mbër yi tey dañuy bëre nga gis bu combat bi tàngee jër gis nga ko ci Modou loo combat bi day tàng jër mu dindi gàllaaj yi sànni nga xam ne gàllaaj yi kon bokkatul nga xam ne léegi lan moo fa des sa entrenement entraînement moo fa des moo tax mbër bu ci entraîné wul combat mun na gaaw mën na yéex. Bombardier xam nga lan la pare doole kese naa liggéey. liggéey na doole mais xamul lu mu war a bari ak bombardier moom Modou Lo bi muy bëri ak ak ak bombardier Balla Gaye bi mu jëlee bombardier xamul lu mu war na bëri ak moom parce que bombardier su fekkee dañ ko bëgg a daan doo ñëw ne ko nañ fi jóge déedéet jamais mais xool ko moom tafaatin combat bu méttee méttee métti la ñu mais moom du bàyyi du bàyyi luur la boo xamante ne dafa diis ba dafa ñime ba pare am doole. Mhm. mais bu fekkee ni maanaam contre Balla ak euh, difficulté yi balay am ci moom waaw mooy li ma la expliqué nii rek difficulté yi li tax Balla doon ko am ci moom parce que Balla day jël bombardier te du liir bombardier parce que mbër da nga ko war a jël bu fekkee combat bi def na six mois maanaam six mois yëpp looy pare ci mbër bi da nga ko war di pare pour xam ko pour xam mbër bi li muy teg ak li muy stratégie bi muy bëree ak maanaam force am fu mu nekk ak faible am fu mu nekk da nga ko war di xam toujours di ci liggéey nag di ci liggéey ci combat bi di ci liggéey boo combat bi yegsi day yomb ci yow lool. Mhm. kon erreur bi muy def mooy du temps di lire Bombardier comme comme a jëlul temps bi di comme ni mu ko war a jàngee parce que ku daan Bombardier trois fois bu Yékini Balla daan daan na ko Tapha Tine sonal Bombardier ba ñëpp gis ko tamit Balla daan na ko. waaw xam nga loolu boo ko analysé lam da ngay juum xam nga tey jii tey dangay dem entraînement sa écrit. am ñoo xamante ne dalay leer ne doo leen daan entraînement te ñi nga mën a daan stade ñoom mënuñoo bëre ak ñoom mënuñu leen a daan loolu day am waaye bu fekkee ni Balla liir na Bombardier parce que combat bi dama ragal ne dina wuute ak bale waaw parce que bii Balla dafa pare xaw ma luy am nag xaw ma luy am mais préparation yi wuute na man moom tere laa toog di wax damay wax li nga xamante ni moom laa gis mais préparation yi wuute na ni ma gisee Balla wow na koŋ te it yéexul te it na kontak bi trop bërëb bi. Mhm. Bombardier nag. Bombardier tamit gis naa ne am na doole gis na lool te gis naa ne tey danaan Balla arbitre bu sifflé danaan Balla loo indi loo indi lay bëri moom tey bi yoon. waaw déglu ko léegi nag Balla bu fekkee ni maanaam préparé wul li mu war a bëri ak Bombardier ba les jours yi Hmm, dina doy waar de. combat bi day métti ji de kon. Hmm, mais pour man ni ma gisee Balla moom pare na. pare hmm.